Euh, Ablaye Wade da ko woolu pour ñëw ci Macky Sall daal di taxaw ci Sénégal daan ni kii ma woolu la mu bàyyi ci salaire wër na ma ne xaalis indi ko ndax la mu bàyyi ci salaire États-Unis du ko am fii te du ko mës a am fii mu bàyyi loolu yëpp ñëw liggéeyal Sénégal def résultat bii mu def am na nag peut-être Macky Sall dafa gis ni. maa ngi ñëw politique yoo xam ne man waxi Ablaye Wade laay wax de kon Ablaye Wade waxam ça ne tient pas la route. ne waxam ça ne monsieur. ah dama ne la discours boobu ça ne tient pas la route. loolu am la pour ñëw liggéeyal réewam. amul lu ko mën a lu ko mën a fay. merci merci kon kon da ngay li mu def. donc kon nga gis ni nga gis ni. des données pour apprécier li mu liggéey. mais mais yow ci sa popp apprécier nga li gaaju liggéey. ñëpp Sénégal képp ku nekk Sénégal apprécier nga bi mu nekkee ministre. mais jamonoy Macky Sall Macky lañ fal il faut ñu ràññatle ki ñu fal fii Macky lañ fal Macky soxla na ko ci li mu ko soxlaa ci ay conseil ak yooyu mais peut-être yi ci politique am politique gu fàttal ma fépp gaajum yi ak dayoom boo ko defee ministre wala premier ministre après bu ma naree def troisième mandat du ko mës a d'accord. man ci sama xalaat du ko mës a d'accord kon gaaju mii du fël naa koy naj et il a fallu attendre la fin pour xam ne politique <laughs> ma fépp lay def <laughs> c'est-à-dire que loolu moo tax ba sénégalais mhm. aussi amaana duñ leen ko mës a jox parce que mhm. soo amee charisme am mhm. personnalité ci politique man du ma cheminer ak yow te joxoma considération bi war ma continuer ak yow gisuma sama bopp ci li ngay def ma continuer ak yow je je je je te tourne le dos ma dem xooli leneen euh, mais mënu leen mhm. ànd ba au crépuscule de du mhm. du du kii nga mhm. nga ne day politique ah, lay def même tuuti rek s'il vous plaît kon yéen a doon ànd di fàtt fépp mon ami il faut nga comprendre leen ma wax la ko hmm. te ma waxaat la ko gaajo du koo xamante ne day toog ki ñu fal mu koy opposé même buñ faloon keneen ku dul Macky gaajo du nekk di ko xeex dafa xam luy état lu mu am ci xam-xam da koy jox waaye bu koo ko jeexalee nag du ko ni kii ngay topp par force sénégalais nag mooy fal sénégalais gaajo xaaru Sénégal fal ko pour mu dund xaaru Sénégal fal ko pour mu exister Afrique soxla na ko Europe soxla na ko bitim réew soxla na ko bu ko Sénégal falul day continuer ñun loolu la ñu yare d'accord dinañ